rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajhal kalaami rashidan wa murshida wa fekkar jël nawir wa xalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi saxoo di seetaan seen télévision Touba Vision comme ni ñu ko waxee rek suba ak léegi ñu ngi koy amal siyaar yi nga xamante ni moom lañu def ci kër njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gépp tey ñu ngi fii ci kër Serigne Bassirou moom Serigne Mouhamadul Fadal gis ngeen dañ leen koy wanee ci image yi siyaar bi nga xamante ni jël nañ ko ak xéewal yi ne mbokki taalib yi indi nañ ko ci kër gi ak gan ñi nga xam ne ñoo seen cofeel ci Serigne Fallou moo leen tax a jug ñu jóge ci ay barab yu fasantikoo ñu ñëw di siyaar si ci kër gi ñu nekk ak kenn ci njabootu Serigne bi muy Serigne Cheikh Oumy moom Cheikh Mouhamadul Bassir moom Cheikh Mouhamadul Fadal di doom ci kër gi di taalibe ci kër gi xam naa moom la ñuy jox rek mu sànni ay kaddu ci turu kër gi ak siyaar beek ni màggal gi demee kon bu ko defee dañuy jox Cheikh Bassirou sëñ Cheikh mi mu sànni ay kaddu. bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin amin moo ngi nuyu mbokk yi bu baax te di leen ziyaara lu bari te leen ndokkeel ci bis bu tedd bu baax bii nga xam ne suñu bis la waaye bisub jullit ñépp la ndax bis la boo xam ne ñun xam nañ yiw yiw yiw yi ci am mooy xéewal gu baax gu tedd gii nga xam ne mooy ponk bi gën a màgg ci lislaam te mooy julli ci guddik tey jii lañu ko suñ borom baaxe woon muy sëri ca boobee nga xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko indiloon jërë te ci rañaanam boobee te suñ borom di wax subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barak naa xawlahu li nuriyahu min ayatina wax jooju ci guddik tey jii la amee woon kon bu ñu yàlla tawfeexalee ñu bokk ci xeet yu gën ci xeet yi Euh, ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ xéewale woon xewal googu ci guddi gu tedd gi ñu ñu di ko magal ngir loole suñ borom taw fee xalaata ni ñu bokkaat ci cheikhul xadim waaye ci biir cheikhul xadim moom yi ñu boolewaan ñu ci biir kër cheikh mamadul fadil cheikh di fadil moom yi di xewal ci yoon wi te ñu wax ne sëriñ bi nee na woon bu feeñoon faneen fudul ci moom it dana fa dem jéggaani fa te suñ borom baaxee woon ñu ko moom itam mu ñëw ci guddi gi kon duñu def lu dul sant ci yàlla te di ci ñaanal jullit ñëpp ñu daje ceeg ngërëmal suñu borom li nga xam ne moom lañ ci sàkku te xéewal bi ci nekk lépp suñu borom dajale dajale ñu ak ñoom ak moom kon rek di ndokkeel mbokk yëpp ci bis bi ndax bisu bisub ñëpp la mhm. jërëjëf jërëjëf sëriñ Cheikhou mi moom Cheikh Mamadou Bassir moom Cheikh Mamadou faadal kàddu yi am na solo ana tey ban jàngat nga ñuy defal ci diggante sëriñ Fallou ak ni ko nit ñi di ñëwalee ci bisam saa su nekk waaw loolu moom lu yomb wax la ndax looy xool di ko gis la ndax Cheikh Mouhamadul Fadil ku gis bisam bi ni mel xam ne lu war lu war a am la donte mënuñoo fay mënuñu koo fay waaye lu war a am la ndax lan mébét yi nga xam ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu bàyyi woon na ko fi muy ñetti mébét te mooy euh, jumaa ji daar jàngukaay bi ak euh, aji màkka ñaari yàlla def na ne ci moom la sottee te mooy aj màkk gi ak jumaa ji bu dee jàngukaay bi tàmbali woon na ko ndax boo demee ci jumaa ji ba mu ko ubbee 63 am na fu ñuy wax darul maarif nga kilifa yu bari jàngee na ci ba ci sëñ Basiru mi wax na ma ni ma bis bañ koy ubbi sëriñ bi jàpp ci loxoom ànd ak boole ko ak sëriñ sëriñ Abo nga xam ne moo fi nekk tey di xalif sëriñ Fall ngir ñu dem dal dal fa nga xam ne kon bokk na ci ñëfa njëkk a jànge daara joojee nag ma ba tey mi ngi dox sëñ As Jaxate moom sëñ Xamsatu moo fa nekk ba tey ma ngi fay jàngale ba bisub tey ji boo demee ña ngay ña ngay joxe dars amut amut bisu dara kon ñett mbébét yooyu nga xam ne sëriñ Fallu defaloon na ko ba noppi bis bii nga xam ne mooy 18 safar cheikhul xadim la anhu jóge woon ci ci mbàkk bari demoon ci tukkeem bu tedd boobu yi nga xam ne moo ñu moo ñu tax a am indépendance bu mag bi ñu am joxe woon ndigal ci njaariñ ngir ñu koy màggal sëriñ lu woote ko woote koo gii mu ko wootal sëriñ bi ci Touba gi te ba mu koy woote mu waxoon ne dama bëgg ndaje ma ñu def ca penku ba ñu ko def fii fi sowu bi ak ak yu bari yu bari yu bari bari yam ci waxoon ak ak ni mu bëggee woon sëñ bi ba àggoon ci dara di wax naan safxu du muwaay saf ku du muwaay li xubbil xadiimi fadlan arahu tuur ay rongoñ ngir bëgg sëriñ bi faratal naa ko ci man kon kon ni mu mu jàppe ni mu woon sëriñ bi bëgg gi mu ko bëggoon nga xam ne àggoon na ci jaay ak njuréelam jënd ko taalibe ndax day wax ne sëñ sëriñ bi da ko woo mook sëñ sëñ Mourou Moustapha magam ju baax jooji ak sëñ Mbàkke euh, astaghfirullah alazim ak euh, sëñ sëñ sëñ bi Buso sëñ sëñ bi ci des sëñ ma roxee ak sëñ Masamba daal leen wax ne leen awma doom kon mook sëñ mur Musaa la awma jarbaat sëñ ma roxee la awma rak itam ma Masamba la li fi am képp ku ko bëgg da nga ciy jënd te dama koy jaay Sëriñ Fall dafa wax ne bañ demee ba njaareem damaa jël sama këyit daal ci karmat daal koy wax ne ko li ñuy wax ak njuréel tam dox sama diggante ak yow jaay naa la ko jële ko ak taalibe te li ma ci amaat mu mel ni ak njëkk defar defar naa ko addiyee ba mu jeex tàkk kon kooku bëgg gi mu bëggoon sëriñ bi moo tax bu amee bis bu mel nii warut a jaaxal kenn warut a kenn kon loolu loolu ñàngal loolu rek lañ ci am te itam waxoon na ne may sëriñ may Cheikhul Khadim ci ba mu ko waxee sëriñ Saliou radiyallahu anhu moo njëkk a jóg ci mbooloo ma te wàkk sëriñ Tuubaa rek daane ko Mbàkke nangu la ko bu wér nekk googu mu nekkoon ak sëñ bi bëgg mu ko bëggoon nekkoon ak taalibeem daan ko liggéeyam moo moo waral mu am li mu am tey. kon loolu bu ko defee sëñ Cheikh mi day mel ne li dellu ci waxi sëñ Abdourahmane Dia naan xubbir xadimi ala sudaani muftaridun isxaarare suuda médecine mu diyee na loolu kon day wane ne bëgg sëriñ Touba moom day farata waaye képp ku koy jiyee mbaa ku koy jàng mënees nga koo royee ci Cheikh Mouhamadou Fadal muy kàddu yi am solo. kon bu ko defee mbokk yi te ñiy seetaan seen télévision Touba Vision lii mooy siyaar bi nga xamante ni moom la ñu toppaloon ci kër Cheikh Mamadou Bassir moom sëñ Modou Fadal ah, kon bu ko defee ñu leen jox dig daje rek ci yeneen siyaar yi yeneen kër yi incha allahu taala wasalaamu aleykum wa ko jooy ak suuf si ak asamaan seen ndoxum yàlla ak jant beeg weer wi ak biddi wi lépp ko jooy ak doj yi ak njanaaw yeeg njaayi àll yalaaw malaayika ak yon ak yi lépp ko jooy ak sabaya xutbu yaag wali عتاقا بك كما بك اعتدت عتاقا بك دوينا ما له نساق صلى عليك الأكرم الخلاق